juróom-ñeent fukki aaya ngi ci ak ñett wala boog juróom bu fekkee ne ta siin aaya la saar wi mook saar yi wàccee màkk duñu wute lu bari buur ne taa siin allahu aalam bi muraadi tilka loolu ayatul qur'aan mooy kaawtee fi alqur'aan wa kitaabin dib téere mu biinin bu daa ji hudan lii njub wa bushra mbég la lil muminin ñeel way gëm mu mel ni dañ koo laaj ñay gëm yàlla ñan la mu ne alladina mooy ñi nga xam ne yuqiimuuna dinañu taxawal salaata julli wa yuutuuna ñuy joxe zakata azaka wahum te ñoom yuuqinoona ñuy wóolu bil axirati ci dikkuk alaxira yi ne léegi ne naka ñi nga xam ne nag laa yuminuuna duñu gëm bil axira ñooñu zeyen naa rafetal nañ lawum ñeleen amaalum seen jëf rek fahum ñoom yaamawuna ñuy déng déngi ulayka ñooñu ladina ñooñu ñi nga xam ne lawum ñeel na leen suul adaab ñaaw ak mbugal waxum te ñoom fi laaxirati hum ñoom alaxsaruun ñoo di way perte koy naka yow dey aleyka salaatu wasalaam la tulaqaa def na sala alquran mi la dun xakimin nga bàyyee ko mu bàyyee ko fa ku xarala alimin ku xam moo la ko sax be ko fàtte mu ngi dellu ci Muusa mu ne jàngatal is qaala ba muy wax Moussa li alihi ñeel jabaram jene inni man aana su seen naa naaran aw safara saatiikum danaa dikkal leen indil leen min haa ca safara wa bi xabarin ci solo aw aatiikum wala ma dikkal leen bi shihaabin ci jum bi shihaabi xabasin ci jum bu ñuy jumoo laallakum ndax yéen tastaloo na ngeen jaaru fa lama jaaha ba mu noodiye woyef ko ne an eey burika yanna barkeeleef man fi naari ñi nekk ci sawara wa man xawlaha ak ko wër wa subhaanallahi sella ñeel na yàlla rabbil alamin ki borom binde fi yaa Moussa innahu luy mbir ana di leer fii allahuma yàlla al aziz maay ki not ci kattan alxakim maay ki xaral bur ne ko wàl qisanil asaaka sa wi yow Moussa falammaa ra'aahaa ba mu gisee yet wa tahtazzu ma ngay yëngatu kaannahaa daanaka moom jaanun jaan la wala Moussa dëdd mudbiran muy joxe gannaaw wala mu yuaqib ñeme wala dellu si yàlla ne ko yaa Moussa laa taxaf bul ragal indi man dey laa yaxaafu du ragal la daya fi man almursaloona ñuy yónni ña illaa man dalama lu may ku tooñ na su ma baddala topp mu soppi xusnan lu rafet baada su in gannaaw ba mu defee lu ñaaw fii daal ku fi ragal yaa xam li nga way ni man xafurun aji bale la raximun aji yëram la wa adxil yàlla ne ko dugalal yadaka sa loxo fii jay bi ke ci sa jiba taxaruñ nga génnee ko bayda muy aji weex ak ak leer min xeyri su inte du jàngoro fii ti si ayatin nga boole koog juróom-ñeenti kawtéef ilaa na nga yóbbu ko ca firawna wa qawmihi innahum ñoom day kaanu nekk nañ xawman diw nit faasiqi na ñu dafay gën a topp fa la maa jaathum ba nga xamee ne dikkal na mu leen aayaatuna suñu kawtéef mubsiratan muy aji leer qaalu ñu ne haada kii day sexrun jabar la mu binan guddaa ji biir wa jaxadoo weddi nañ biyaa ci loolu wastayqanat haa te wóolu na weddi gaan fu soom seen bopp zulman ngir tooñ wa uluwan ak kawe fandur seetal nag kayfa kaane naka la nekkee aqibatul mufsidin mu jëg ñi nga xam ne ñoo yàq bàyyi na loolu ma ngi ñëw ci xéwalu yàlla gi mu joxoon daawuda ak suleymaan yonte yàlla suleymaan alayhi salaatu mooy doomi daawuda bokk ci sëtu yusuf ak binyamin ak sëtu isxaq ak yaqub suleymaan yàlla joxoon na ko ak nubuwa ak ak risaala ak ak mulk ngóor gu rëy nag la amoon docteur Taw Seyno rahmatullahi alayhi nee na ca téeréem ba muy critiqué mu ne Suleymaan ku añaan la woon mu ne laa ara ila annahu rajulun xasuud mooy jamono bi muy bind adabiyaatam yi lu nekk mu dugg ci ndeysaan bi mu magee nag mu bindaat beneen téere tuddee ko tawba ñu bari mu tub ci mu ne Suleymaan ku añaan la parce que nit kuy wax na yàlla jox ma nguur goo xam ne dootoo ko joxati kenn sama gannaaw mu ne laa ara illa annahu rajulun xasuud suleymaan yàlla joxoon na ko ci nguur lu yàlla joxut kenn yonent bi alayhi salaatu salaam xeex naag seytaane iblis ba jàpp ko yeew ko mu ne góor gi di jooy di jooy di jooy ba bët set mu ne ko Muhammad yewi mu ne ko duma lay yewi fii laa lay bàyyi ba ñëpp fekk la fi kenn mënul laa gis ma ne leen ñëw leen iblis a ngi nii ak sa sikkim bu gudd bile muy jooy nag ba sikkim bi daal di eh, ronq yi ñëw ci sikkim bi ba yàgg yonent bi ne ko naa la ba yeewi sax ndax sa mbokk sa mbokk Suleymaan ne yàlla yaa nag ma may loo mayut kenn te munut la woon a wane kon ma la wanee kon dana am lu kenn amul xaaral may dal di ko yeewi mu dal di dem Suleymaan nguur ga reyoon na bee moom rek moo amoon moom it di wax ak picc yi xam nga nit ku ne boo xeebut sëg may rek xam ne yàlla may na lu mayut kenn yonent yàlla Moussa moo am bu waxee yàlla tontu ci saa si rek wax rek yàlla wax nee na wax ji fu ne lay jógee sama yaram yépp ay dégg noonu la war a mel yonent yàlla Ibrahima yàlla ne ko yow yow laa def xarit taxasala Ibrahima xalila loolu kenn amu ko moom moom rek la yow laa jàpp ngay sama xarit yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla ne ko yow laa def nga nekk sama soppe Suleymaan nag yàlla may ko muy dégg waxi picc di dégg waxi melentaan yi picc da koy romb sap mu ne def ne ma gaaw dellu ci sama doom bu romb melentaan bu ñu waxee mu dégg ko Suleymaan nag jóg ànd ak ànd ak lelam bu réy boobu bu jógee jinne yi dañuy jóg moo leen man di leen liggéeyloo guddeeg bëccëg doomu aadama yi topp ko jinne yi topp ko picc yi topp ko noonu lay tukkee ngelaw yi di ko yenu muy dem mu ñëw ba wàcc ci benn këru xorondom ne cirib mu ne mu dégg xorondom bu mag ma ngi naan gaaw leen dugg ci pax yi balaa leen suleymaan a dëgg ak lilam bu bari bile suleymaan dal di muuñ ne ko waaw xanaa ñun nga ne amuñuy xel be bu ñëwee dañ leen di joggi rek ngeen dal di dee mu ne ko yonent baal ma dama ne fekk yëgu leen ko waxum laa yashuruna laa wax man dama ne man na yaxtimannakum suleymaan wa junoodahu waxum laa yashurun ndax yéen du ngeen du ngeen ko yëg suleymaan alayhi salaatu wasalaam su picc waxee mu dégg bu yent yent yi waxee mu dégg day laaj picc yi fan la ndox mi toll picc ndox yi ñu ne ko fii la mu ne jinne yi na ndox mi génn ñu génne léegi ñu jariñoo demati rek loolu moo tax buur ne wala qad naa joxoon nañ daawud ak suleymaani ilman xam-xam wa qaala ñu wax alhamdulillah cent ñeel xéewal lu mu rëy rëy alhamdulilah moo koy fay lazi yàlla ma nga xam ne faddala naa gënal nañu ala katirin ci lu bari min ibaadihi ci jaam ya almuminin ñi di way gëm wa warisa donna na suleymaanu daawuda mafuul mi faa'il ji donna na ko suleymaan donna na daawuda ca nguur ga ca xam-xam ba ca yonent ga wa qaala wax moom suleymaan ba mu wutoo bayam ni yaa ayyuhan naasu noonu rek lay baaxee de waxtu wuñ ne bàyyi daanu na doom war naa ne war naa ne bëret lépp li bàyyi mënoon mën ko rek wallaahi am na nga xam ne doom jadd na bàyyi jaddaanu na te doom jëmanut loola ay xam na ndax ko jadd na moo tax it ba suley ba nga xam ne daawuda jadd na rek dem na rek suleymaan dal di ko yenu wa warisa suleymaana daawud suleymaanu daawuda wa qaala mu ne yaa ayyuha naas yéen nit ñi yëg leen ne yónni nañ ma te ulim naa xamaleef nañu mantiqa tayri waxi picc xam naa ko wa wootiinaa joxeef nañu min kulli cheyin ci lépp la xam-xam inna haza lii nag la huwa alfadlu ngëneel rekk la almubinu gu bir lii nag mooy ngëneel nag xushira booleef li suleymaan junoodahu lilem ba minil jinni ci jinne ya wala inseeg nit ña wa tayra ak picc ya fahum ñoom picc nit jinne jubawuñu nga boole leen waaye fahum ñoom yow zauna def na tere leen ku ci ne dañ lay tere dolloor sa morom hatta iza ataw ñuy dem nak ba dik nak ala wadi nam li ci qur wi nga xamne fa la ndang ba dekk wadi nam li ma nga ci palestine fu ñu xam la ba legi qala wax fa nam la aw qoro ki ñu doon jangal bu ci yegseel ne xorondong wu jigéenam wu goor ñun ñep ñu ne ko bu jigéen mu ñu ne lu tax ñu ne qalat ndax atta ji ci namlatun mën naa am fekk ismu jin si jamoo la waaye xaalat moo nuy wan ne bu jigéen la moo doon buur ba mu ne yaa ayyuha namlu ee yéen xorondong yi duxuloo dugg leen masakinakum seen dëkkuwaay ya laa yaxtimannakum ndax du mabbaleen suleymaan wu junoo doog lelam bu bari ba uhum te ñoom laa yashurun duñ ko yëg fa tabassama suleymaan dal di muuñ daaxikan muy aji ree min qawliha ngir wax xorondong wu jigéen woow wa qaala mu ne rabbi yàlla awzini yan na nga ma dénk an ashkura may mën a sant nicmataka say xéewal lati yi nga xam ne ana am te xéewal nga ko alayhi ci man wa ala waliday ak sama ñaari wayju wa an amal ak nga dénk ma may mën a jëf saalihan jëf ji yiw joo xam ne moo mën a moo mën a nekk daal natt ngoog xéewal bi nga ma jox tardahu boobu da nga gërëm ko watxil ni yàlla nga dugal ma bi rahmatika ci sa yërmande fi ibadika saalihin ci sa jaam yi yiw ya suleymaan a ngay dem nag ba yàgg rek ñu ne soxla nañ ndox de mu ne ana hudhud da Musaa ana mu gaa ñi xool xool nekk fi de picc yem ne nekku fi gisuñ ko de di ko gaaw boole nan ko newu fi de gisuñ ko de suleymaan ne baax na ba mu ñëw moom nga xam ne mooy xamkati ndox soxla nañu ndox kenn gisu ko mu ne baax na bu mu ñëw danaa ko mbugal wala ma ko sax mu dee bu daan mbugal picc nag da koy suqi teg ko ci ay xoron ñu koy mat doy na mbugal <coughs> mu ne baax na ulamaa yi ne daf ñuy jàngal danaa ko mbugal wala ma rey ko wala mu indiw lay gune balaa nga ko dóor da koy déglu ne ko lu tax nga def nangam ba mu wax léeg-léeg léeg gune gi gàtt wala mu yàq baat ne ko yaa bindee noonu kon nag da nga koy wax ne ko lu tax nga wax ko noonu kon nag danaa la rey wala mu bëggal la wala nga indi lay wóor la Suleymaan wax ne baax na ñu toog ba yàgg rek Hudud ne dare ne yow mi yàlla yoon ni yaay buur bi yow la yàlla yoon yónni waaye xam naa ci nguur gi loo xamul tey mu ne lu mu doon mu ne wër naa ba gis réew moo xam ne jigéen moo fay buur te jant bi lañuy ñuy buy so ak buy fenk maa ko gis mu ne foofu fan la mu ne saba yi fale ci yaman falaan naa woon dem ma fekk fa jenn jigéen yu naan balqiis moo yelif réew ma ñoom nag jant bi la ñuy jullil man sax waar naa leen fa ndax wax naa leen ne tee ngeen di julil yàlla mi nga xam ne mooy génnee ndëxañteef ci suuf waaye faale wuñ ma suleyman ne ko baxna kon nu set, gawma sa wax ji waye dinaa set dama ragal ne nga lay rek ngir bëgg mucc ci sama mbugal waye dinaa set ndax wax nga deug wala da ngay fen dal dina legi damay bind lettre nga yobul len ko comme yaay narkatu njëgg yow la yeen mbuus mi ko xam ya ko gis yobul yobul lettre bi dal di bind wa annahu min suleyman wa annahu bismillahir rahmanir rahim allah wa alayhi wa atana muslimin dal dina yobul yóbbul ko jokum dal di ngank ci gémmiñam rek tepp ba mu ñëwee sabay fekk balqisan ci gàngunaay gi gañan koy upp ni ñangi trim wër ko xamul nu muy def bañ gis ko ndax bu ko sànni legi te yaakar ne xeyr wi naaw la mu xol gis benn fenêtre bo xamne bu fi jent bi tollo rek ñu xamne ne mu ngi bëgg so naaj bi dugg ci ñu julli ñu jant mu daal di ñëw rek toog ci fenêtre ba foog danañ ko xool ba jant bi yegg si naaj bi dugg rek ñu ne naaj si dugg si ne xool ko rek mu sànni ñu daal di jël dañ ko xottee nag mu daal di ne eey mbooloo mi ah man de waaye leetar bu tedd moo ñëw ci man mu ngi jógee ci benn buur bu naan Suleymaan ma nga ca Palestine leetar bi nag ci nekk daf na leen jébbalu si ci yàlla ànd ak man léegi nag dama bëgg ngeen jox ma xalaat ci loolu ndax mankat may maay buur waaye musuma dogu ci menn mbir lu ma yéen ñëpp ngeen teew ku ne wax ci xalaatam gaañu ne ko ñun daal doole lañu am ak kàttan ak i ngannaay mbiram dogal ci yow la nekk seetal rek loo digal nu def loolu ñun mu ne déet loolu baaxut nit buy diisoo yow lu mu nekk nekk kilifa danga koy jox sa xalaat waaye bu leen wax rek ñun ñoo am kàttan xamu leen ne buur bu duggeem réew da koy yàq waxtu beneen buur duggeem réew da koy yàq ndax bu fa xeexee day jàpp ñi nekkoon buur ñooy mujj nekk ñu torox noonu rek la ñuy def kon nag leen ma yónni leen ay cadeau na ñenn ci ñeen yéen ñëw yóbbul ko ay may ak i yu bari li wurus la li xaalis la li yeneen ahjaar karima la li ay jilóot la li yeneen la yépp ngeen yóbbul ko bu fekkee àddinaa ko yitteel kon may yooyu dana ko doy day xemam yeneen ma di ko jox bu fekkee àddina yitteelu ko nag kon du ko jël ñu ne baax na ba gaañ a indee may ya jox ko Suleymaan Suleymaan ne aha ñii alal lañ may jaay man alal daf ma tax a jóg man li ma yàlla jox moo gën man bëgguma lii yobbu len sen hàddi su ngeen deme ngeen ne ko dana ko indil ab lil dana ko indil ab xare bo xamne dana bari ba melni ni guddi te du am fu mu jëm ak mom te bu xare bi ñewé ba ma dugg dëkk bi dana ko génnee dëkk ba mu nekk kuñ japp ku torox bi ñew balqis jang ko ne ah li de du waxi caaxaan kii àddina kon nak bu fekkee mbooloom mi ngi d'accord ngeen di man de damay dem dabi ko su ma su ma demee ca moom ma dugg ci diineem ànd ak moom jaamu yàlla ndax waxam ji waxi dëgg la mu daal décidé nag ànd ak mbooloom ne ma ngi jébbalu si ci diine ja ba mu jógee rek di kërëb kërëb bi ñëw jinne yi xamal Suleymaan ne Balqis a ngi ñëw jinne yi nag dañu na a ñaanal lëf ñu ne balqis ngi ñëw de waaye nag moom du nit jinne la dañ koy fiir ak suleyman ñu ne moom moom du nit jinne la boo gisee yaram bi dafa am kawar ba ba kawar gi dafa dafa dafa muur yaram wi yépp kawar la du nit suleyman ne waaw waaw kon nag ana kan moomay indil pilianam ba balaa moo yegg si ma nga nee de pënd baa nga nale mais balaa mo ñëw fii kan mooy mën a indi gàngunaay gi ci yaman indi ko palestine benn kuyel jinne ne kooku de maa ko man man naa ko ku dëgër laa ci man ko indi ku ñu wóolu laa danaa ko indi te du yàqu Suleymaan ne ko yow danga ngaa yéex ku la gën a gaaw laa bëgg benn waay ni man di maa ko mën a indi léegi xaf boo xëfee rek balaa nga xippi danaa ko teg ci sa kanam Suleymaan ne loolu laa bëgg waa ji ne ko gàngu naay gaa ngi ni sa kanam ba mu teewee Suleymaan ne lii day nga ne lu yàlla rekk la nag yàlla daf may nattu ndax lii mu ma jox dama ko ciy santam dama koy weddi di bew xam naa ne ku sant nag sa bopp nga koy def waaye ku wed ku weddi nag yàlla day am na ñu koy sant Suleymaan gaa ñi gaaw leen ngeen rocc benn wiis wala dindi dara ci ci pliaan bi bala mooy ñew ndax mu xawa a wuuteeg bosam gaaw gaaw leen ngeen am lu ngeen ci def gaay am luñ ci dindi dindi ci dara tek ko fele ma ngi seet ndax ndaw si am na xel wala amul xel ndax soo amul xel buñ ne ko ndax li sa pliaan la danaan waaw soo amé xel nak dana seetantal xamni amna lu ci jog mu xamni dafa niro rek lolay lay muy ben ndax jinne amuñu xel may seet ndax jinne la beneen bi itam mu ne gaaw leen néeg bi ma koy dalal dër bi ci perong bi yépp na ko def ay weer ak i seetu day seet ba xam ndax kawar gi ne moo ne ci yaram wi dëgg lam déet ndax jine lam nit ndaw si dal di yegsi ba mu yegsee ñu ne ko ndax lii sa toggukaay bala mu dal di ko xool ne ah, daanaka moom la de daanaka mooy am na lu ci wàññeeku réem bëgg dugg yaakaar ne lii am ndox la ñu ne ko déedéet seet ay weer rek la seetu la jàllal mu xool fekk li gaa ñu waxoon dara amu ci balqiis dal di dugg ci diine ja suleymaan dal di ko takk delloo ko mu nekk buuru yaman suleymaan def at mu nekk mu dem fa loolu la ulamaaw taarix nettali ci gàttal ci lool qissa bi gën a gudd loolu yàlla ne wa tafaqada nemmeeku na nemmeeku mooy toog toog rek gisoo dara a tayra picc ma fa qaala mu ne maa liya loog man laa ara gisuma al am kaana ndax dafa nekk min al gaayibiina ca faddu ya lu tax gisuma al ndax dafa nekkul la waaddibannahu wallahi dana bugal ko aadaaban bugal shadidan mu daaji metti aw la adbaxannahu wallahi danaa rendi ko aw la yaatiya nii wala mu indil ma bi sultaanin ci lay mu binin wu daaji biir fa makusa newul jàng xeyru baidin yàggut newul jàng mooy yàggut qaala mu ne axattu man day léem naa mooy xam naa bi maa lam tuxit loo xam ne léemu loo yow yonent bi bii ci moom xam-xam wa jiitu ko dikkal naa la min saba maa ngi jógee saba i bi naba in mooy yaman bi naba in ci solo yaqinin bu wóor inni man wajatu fekk na imraatan jigéen tam liku moo moom ootiyet joxeef na ko min kulli shay'in lépp lëf wala ñel ndaw sa arsun gàngu naay aasimun gu màgg wajattuhaa fekk naa ko wa xaw maag ñitam ña yesu ji doona ñu ngay juli li samsi jënt bi min dooni laay ñu bay yàlla wa zayyana rafetal na loom ñeleen cheytaan amaalum seen jëf fa saddaw mu feg leen ani sabili wali si yoonu njub foofu ñoom laa yaata doona jubuñu alaa yasjudoo man sax sob naa ba di leen fa wax ne moo ndax duñu sujjoot lillaahi ñeel yàlla fi samawaati ci asamaan ndarañteef mooy lu ñuy denc wala ardik suuf wa yàlla mooy xam maa tuxfuun la danañu nëbb ko maa tuxlinuun ak dana danañu feeñal ko allahu yàlla moomu laa ilaha dit benn buur ilaa walu mooy moom rabbul arshi mooy borom arash alazim bu daa ji màgg qaala mu daal di sa ne sa nanzuru danañu xool a sadaqtu ndax dëggal nga am kunta wala nekk nga minal kaadibiina ci way nariya idab demal bi kitaabi sama téere azabi falqii sanni ko ilim ci ñoom su ma ta wala nga daal di bu fa dal di wàññeeku anum walis leen fandur seetal ñu daal di seet di mu ñandiku nag maasa yarjiun lan la ñuy delloo comme tont qaalat ndaw sa ne yaa ayyuhal malaw e yéen mbooloo mi inni man de ulqiya sanneef na ilay jëm ci man kitaabun téere karimun bu daaji tedd innahu nag téere min suleymaan la jóge wa innahu moom téere bi mooy bismillahi arrahmani arrahim allah taalu ndax du leen ñëw alay ci man waatu ni ngeen dikkal ma muslimin ngeen di way omatu qaalat ndaw sa ne yaa ayyuhal malaw e yéen mbooloo mi aftuuni na ngeen ma ubbee fi amri ci sama mbir maa kuntu nekkuma xaatiatan di aji dogu amran ci menn mbir xataa tashhaduun la ba ta ngeen teewe yéen ñëpp xaaloo ñu ne ko naanu ñun daal uli quwatin ñooy borom kattan li uli baasin ñooy borom ay wi shadidin wu daaji tar wala amru mbir mi kay ilay jëm ci ne ci yow ndaw si fanzuri seetal maasa tamurina lan nga ñuy digal xaalat mu ne inal muluka nak ay buur isa daxaloo buñ ñu duggee xariyatan ab dëkk af sadowa ñu yàq ko wa jaaloo ñu mujjël aizat aliha ñi gënoon a tedd ci dëkk ba adilatan ñi di way torox wa kazalika yafaaluun noonu rek la ñuy def way ni man nag mursilatun ji yóni laa ilim ci ñoom bi addiyetan ci benn kado mu dig may fa nazratun maa ngi mu ñandiku nag li ma yarjiu lan lay delloo si al mursaloon ñi ñu yónni woon cadeau ba fa la maa jaa ba mu dikkalee suleyman qaala mu ne atamudduuna nii moo tax da ngeen may tëbb bi maa leen ci alal fa ma ataaniya la jox na ma ko laaw yàlla xayrun moo gën bi ma ataakum ci li mu leen jox ballu fi nekk antum yéen tafraxuuna yéen a ngi bégee bi hadiyatukum seen hadiya irja dellul ilayhim ci ñoom fala naatiyannahum danañu indil leen bi junoodin ci lel boo xam ne laa qibala déet ak wàlla déet kattan lawum ñeel leen bihaa ci moom wala nuxrijannahum danañu génnee leen mihaa min haa ca sabay adillatan ñu di way torox wahum te ñoom saaxiroona way torox lañ xaala mu ne yaa ayyuhal malaw éy yéen mbooloo mi ayyukum kan ci yéen yaati nii moomay indil bi arshiha ci gàngu naayam ga xabla an yaatu nii njëkk bañ may dikkalat muslimina di way jabalu ci yàlla xaala wa ifritun genn madd minal jinni ci jinne ya mu ne ana man aatika maa lay indil bii ci moom xabla an taquuma njëkk ngay jóg min maqaamika balaa nga fay jógee ma indi ko way ni man alayhi ci indi ko la qawiyun ku la aminun ku ñu wóolu nga xaala wax mu ne man loolu yàgg na qaala wax allazi ki nga xam ne ali indahu nekk na fi moom ilmun benni xam-xam min al bi ci téere bi sawi alal jalaalayni nee na kii indi gàngu naay ga du jinne nit la mu ne nit ki moo ëpp doole ci yàlla ak ci man-man ak ci tëjaliyaat tasarruf jinne ja mu ne benn wàliyu nit bu tudd asif ibnu barxiya moom la seetu saa wax allahu alam ndax la mu wax am naam déet nga ne kooku ko indi waaye alquran daal daf ne kii am xam-xam ci téere ba moo wax ne ana man aatiki maa lay indil bii ci loolu xablaan yar tëdd njëkk bay dellu siyaat ilayki jëm ci yow farfa ko sab gis falamaa raahu ba mu ko gisee yow borom haashiya boo ko xoolee da ko gis falamaa raahu mu ne ba mu gisee gàngu naay ga mustaqiran ma nga sax indoo fa moom qaala mu ne ko haasa lii de min fadli rabbi mu ngi jógee ci ngëneelal sama borom li yeblu wanii ngir mu nattuma ashkuru mu ndax damay sant am ak akfuru wala damay weddi wa man shakara ku sant na fa innama yashkuru naka dana mu sant li nafsi ñeel boppam wa man kafara ku weddi na fa inna rabbi sama borom xaniyun aji doylu la karimun sama borom ku tedd la qaala mu wax moom suleymaani nakiroo fakkalu leen laa ñeel ko arsha gàngu naayam ga na ngeen fexee ba mu fakk ko ba du ko mën a xàmmi su ko defee ñun nanzuru ñu xool a taxta di ndax dana jub am xel am takuun wala day nekk ci nit ñi nga xam ne min alladina ci nga xam ne laa yaata doon du ñu jub fala maa jaat ba ndaw si dikkee xiila waxeef ko ah hakasa ndax lu mel ni lii arsh ki mooy sa gangu gàngunaay gi xaalat mu ne kaanahu daanaka moom day huwa moom la waaye wa utinaa joxeef nañu aleel ma xam-xam min min min qabliha balaa moo ñëw dafa am lu ñu waxoon ci moom moom lañ doon seet wakku naa nekkoon nañ muslimina di way omatu wa saddaha fegoon na ko maa kaanat la mu nekkoon taabudu di jaamu ko min duni laay dudu loolu moo ko fegoon ba daawud jaamu yàlla innaha naka ndaw si kaana nekkoon min qawmin ci nit kaafiri ni ñu di way weddi xii la waxeef laa ñel ko duxuli duggal sarxa taax mi duggal ci dugal ci tabax bi dugal ci tabax bi ak taaxum kaw mi fa la maa ba nga xamee ne gis na ko xasibatu mu joortu ko ne lujjatan am lëgg la mu yaakaar ne ndox la wa kashafan mu uñ ñi an saaqa yaa ci peri tànkam ba di dugg xaala mu ne ko na innahu naka lii sarxun lu ñu rattaxal la wala nga ne sarxun am taax la mu maradun mu ñu rattaxal min xawaarida ci butil maanaam ay weer la na nga dugg rek xaalat mu ne rabbi yàlla indi man balqiis wasalamtu tooñoon na nafsi sama bopp ci jaamu ku dul yàlla wa aslamtu jébbalu naa tey maa suleyman ànd ak suleyman waaye ci kan lillahi ñeel yàlla de rabbil alamin ne borom bindeef yi ànd ak suleyman jébbalu ma ci suleyman waaye dama ànd ak moom nu dem ci yàlla loolu mooy kalimatu tawxid bi bay na loolu mu ñëw ci baamtuwaat samuda wala qad arsalnaa yónni woon nañu ila samud axaawum seen mbokk ma saalax qaala mu ngi naan mu leen wax naan an abudu jaamu leen laa yàlla fa ci betteel fariqaani ñu nekk ñaari kuré yaxtasimuna ñu ngay xuloo ñii gëm ñale weddi xaala mu ne yaa xaw mi yéen sama nit li ma lu tax tastaajiluuna ngeen di yàkkamti bi sa yeeti ci lu bon li qabla alxasanati njëkk ngeen def lu baax law laa tastaxfiruun te ngeen ñaan yàlla njéggal laa yàlla laalakum ndax yéen turxamuuna def yéram leen xaalu ñu ne tayyar naa ñu dey gaaflu nanu bi ka ci yow wa bi man maaka ak ñi ànd ak yow xaala mu ne taayirukum seen gaaf kay inda laayi ma ngi fa yàlla ballu fi nekk antum yéen xawmun aw nin ngeen tufta noona def na nattu leen wa kaane nekk na fil madinati ci dëkk ba tisaatu raxtin juróom ñeenti giir ñoo fa nekkoon ci xeet wa juróom ñeenti giir yooyu ñoom lañ ñoom lañ yónni woon ci ñoom euh, saalax mu jox leen gélëm ga juróom ñeenti giir yooyu yépp yufsiduuna dañ doon yàq fi la addi ci suuf wala yaslihuuna mosuñoo mosuñoo yéwénal xaaloo ñu ne te xaasamoo nañu nañu géñante billaay ci yàlla ñu daje dal di fexe dal di géñ daldi di ne lanu bayitannahu danañ ko fanaana fexeel waalo ak i bokkam su ko defee nu rey ko boo lëgee nag bu ay bokkam laajee ñu ne yëgunu ko su man la naqulan ñu wax li wali yi ñeel ñu méngoo ay mbiram bu ñu laajee ñu ne maa shahid naa ñu ne fekkewuñu muulik aali yi ba ñuy àll ak ñoñam ñi way naa ñun la na way dëggu lañ yàlla ne wa makaroo fexe nañ makaran fexe waaye ñun yàlla nag wa makar naa dogal nañ makaran ab dogal wa hum te ñoom laa yashuruna yëguñu fandur seetal kayfa kaana naka lay nekkee aqibatu makrihim mujj ak seen pexe ma annaa ñun yàlla dammarnaahum alag nañ leen wa qawmum seen ni ñaaj may nim wala seen fa tilka foofale bu yotaw mooy seen néeg ya xawiyatun aji aji aji fiix la aji wéet la kenn dëkkatu fa mooy gent na dala moo ngir la ñu inna bi dalika aji nekk la ci loolu laayatin kaw li qawmin ñeel nit ñoo xam ne boo leen seetee ñoom yaalamoona danañu xam waan jey naa nañ la dina ña nga xam ne amonoo gëm nañ wa te nekk nañu yattaquuna di ragal yàlla naka noonu itam mu yónni yonti yàlla kon li muy jàng ci luut dana ci yóbbuwaale ñetti bind yu bokk ci dar sub ëllëg ba kon ma ngi war taxaw ci fassa amatarul munzarin ndax foofa li mu doon wax di daanoo loolu lay wax ne wa lootan jàngal loot is qaala ba muy wax li xaw mi yi ñeel nitam ñenee ataatuuna ndax da ngeen di dikkal alfaaxisata ñaawteef wa alfaaxisata lu bon la mooy ityaanu zakari doona nisa wa antum yéen tubsuroona ngeen xam ne baaxut ay nakum naka yéen la taatuuna da ngeen dikkal rijaala ay góor shawatan bànneex min duni ni yi ngeen bàyyi jigéen ballu fi nekkantum yéen xaw mun aw nit ngeen tajaloona da ngeen a réer buur ne fa maa kaana nekkut jawaaba qawmihi tontu nitam ñe illaa an qaalu lu may ñu wax ne axrijoo génne leen ala loota nitu loot min qariyati kum seen dëkk bi ndax innahum ñoom leng, aw nit lañ yatataxaroona yoo xam ne dañuy laabal laal góor faan jey naaw ñu musal ko waaloog ñoñam ilam raatoo lu may jabaram ja xadar dogal nañ ko ne minal gaabirina nda bokk ci way alkuya wala way des ca mbugal ma fa am tar ñu tawaalim ci ñoom mataran ab taw fa saa matarul munzarina tawab ñi nga xam ne dañ leen a waar ñu bañ a waaru صدق اللهم العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا مولانا ورازقنا من الشاهدين اللهم انصرنا بحق القرآن الكريم اللهم انصر عيوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطول أعمارنا وزد أرزاقنا اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واغن فقراءنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنسانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطائعنا وعاصنا اللهم احمنا واحم بلادنا واحفظ بلادنا وحكامنا وعلماءنا وعلماء جميع المؤمنين احفظ بلادنا من الفوضى ومن الفتن والجوع والخوف واكشفنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم احفظنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين خذ بايدينا واحفظنا ولا تكلنا الى غيرك يا رحيم يا رحمن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 wa radiya allahu an ashaabi rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam la hawla wala quwwata illa billah mu wéy ci lim doon wax ne ay tegtal yu wóor yuy tekki kenn yàlla ak kàttanam mu nequl waxal alhamdulillah cant ñeel na yàlla wa salaamun jàmm ala ibaadihi na nekk ci jaamam ya alladina ña nga xam ne istafaa tànn na mu leen léegi nag allahu ndax yàlla moomu xayrun moo gën ama yushrikuun wala li ngeen di bokkaale aman xalaqa mu ndax ke bind na mu samaawaati asamaani wal ard ak suuf wa anzala te mu wàccee lakum ñeel leen mine samaa yi ci asamaan maan am ndox fa anbat naa ñu saxal bi ci moom xadaayiqa ay tool zaata baajatin yey borom ab taar maakaana nekkul lakum ñeel leen amuleen woon benn kàttan antun bitu ngeen di saxal shajaraha garabam ya a ilaahu ndax am na yàlla ma allaahi bu ànd ak yàlla boobu ndax yàlla jooju am na yeneen yàlla yu ànd ak moom ballu fi nekk hum ñoom xawmun aw nit lañ yaadiluuna danañu sàkkal yàlla ndend aman jaala moo ndax yàlla ji def alarda suuf qaraaran muy saxuwaay wa jaala mu def xilaalaha ci diggante suuf anhaaran ay dex ak yolnde wa jaala mu def lahaa ñeel suuf rawaasiya ay doj mu di kenn yu koy téye wa jaala mu def bayna al bahrayni ci bopp yi si mu def ci bopp suuf si fu nekk mu def fa ay doj yoo xam ne ñoo koy téye wa jaala mu def bayna al bahrayni diggante ñaari géej gi mu def fi xaajizan ab pom bu koy diggale a ilaahun ndax am na jenn yàlla ma allaahi bu ànd yàlla boobu ndax yàlla jooju amaat na meneen morom ballu fi nekk ak tarahum gën ja bëri seen laa yaalamuuna xamuñu mu ne aman yuy jibu ndax yàlla bi nga xam ne day wuyu almutara aji loru ida daawu bu ko wooyee wa yog shifu te muy uññi soo alu bon li waaye yajcalukum mu leen di def xulafaa al ardi ngeen wuutu ci suuf a ilaahu ndax am na benn yàlla maallaahi bu yànd yàlla jooju su fekkee looloo nekk ci seen xel day nga xam ne xalilan kon waaru gu néew maa tazakkaruuna mooy seen ak waaru aman yahdikum ndax yàlla ji dina jubal leen fi dulumaati bari ci la ndëm ak jéeri ji wal géej wa man yursilu ak yàlla ji yónni riyaaxa ngelaw ya bu bushuran ñuy béglee bayna yaday rahmatihi ca kanam yërmandeem a ilahun ndax am na ay yàlla ma allahi yu ànd ak yàlla jooju taala allahu jomba na yàlla ama yushrikuun ci lañ koy sàkkali morom aman yabdaw ndax yàlla ji nga xam ne dafay sos alxalqa bind ak bindéef su ma yuciiduhu topp mu koy delloo wa man yarzuqukum ak dana mu wërsëgal leen ndox ak i xéewal mi ne samaa yu bàyyee ko ci asamaan wala ardeeg suuf a ilaahun ndax am na jeneen yàlla ma allaahi ju yàlla jooju su fekkee waaw kul waxal ne kon haatu indi leen buraanakum seenu lay in kuntum dem nekk ngeen saadiqina di way dëggu kul waxal ne laa yaalamu xamut dey man fi samawaati ñi ci asamaan wala ardik suuf kenn xamu ci alxayba xaybu ilallaahu lu ma yàlla rek wa yusha yashcuruuna yëgalut leen itam ayaana yubaasuun kañ dee fi dekkal leen ballu fi nekk idraaka ilmuhum idraaka ilmuhum loolu mooy seen jotuwaayu xam-xam idraaka ilmihim loolu mooy seen jotuwaayu xam-xam rek wala nga ne draaka xam na jotuwaay loolu ilmuhum seen xam-xam daal foofu la jotam di yem seen jotuwaay xam-xam daal moo fi yem rek waaye yéen xamu leen ci dara fi fi l axirati ca àlaxira fi nekk hum ñoom fi shakkin way nekk lañ ci sikk minha ci loolu bu fekkee jege naag jegewut ñoom dal wóorul leen yemuñ ci réere ko waaye dañ ci am sikk mooy leerul la rek ball fi nekk hum ñoom amuuna way selmaxa lañ minha ci xam-xam boobu ba duñu xam ana kañ lebés penc yi ñëw wala kañ kañ dee fi dekkal leen bàyyi na loolu mu ñëw ci pas-pas pas-pasab dekki mu nekk ci fondement yi nga xam ne kuy gëm da nga ko war a gëm mu ne wa qaala wax na lijina ñi nga xam ne kafaru di nañ ay zakun naa ndax ndem nekk nan turaaban di suuf waa baawu naag sunu bàyyi yi deewoon bu yàgg a innaa ndax nun la muxrajoona ñu ñu nar a génnee lañu mu ne ah laqad wucid naa deeleef nañu haasa lii nax nu ñun waa baawu naa ak suñu bàyyi min qablu bu yàgg mu ne in haada déet lii ilaa satrul awalin lu moy moy netali ak feni mag ñu jekk ñi rek dañ ko yag deg rek waye deki dal amul kon lolo itam mu ngi melni li yalla waxon legi rek idrak ilmu sen xam-xam mo toll fofu li lañ ci jotta xam la ca dess bu yowmal qiyamé xam-xam bobu jot si leen maanaam lii mottali xam-xam bobu mom ma nga ci alakhirah fa lay maté suñ demee ba ñu gis lañ leen dëhaloon ñu xam ne dëgg la xul waxal ne siroo tukki leen filaar di ci suuf fanduroo seet leen kayfa kaana naka la nekkee aqibatul mujrimiin mu ak def ko ci bàkkaar ya wala taxzan bul jàq alim ci ñoom walla takun bul nekk fi dayqin ci xatu xol mimma ci li nga xam ne ñoom yam yamkuroon nañu koy fexe ndax wa yaquluuna nañu nga naan mata haazal waadu kañ la boobule dël in kuntum dem nekk ngeen saadiqina di way dëggu mu ne qul waxal ne aman na an yakkoona di nekk faax sax radifa jege na lakum ñeel leen baadu lazi lenni la nga xam ne tastaaji tastaajiluuna da ngeen yàkkamti ko mën na am sax fekk li ngeen di yàkkamti mu di yowmal qiyaam jege na wa inna rabbaka nag sa borom la zu fadlin borom nga ne la ala naasi ci nit ñi walakin waaye ak aktarahum gën jëbëri seen laa yashkuruna dañ ko du sant wa inna rabbaka nag sa borom la yaalamu dana xammaa takkinu la dana tukkinu la dana nëbbëkka su dóoruhum seen dënn ya muy xol ya wa maa yuclinuun dana xam la danañu feeñal kayitam wama min ghaibatin amul len lo xamne aji faddu lamu fi samaa'i yi ci asamaan wala ardeg suuf illa fi kitabin lumay lola nek na ci téré mu biinin bu aji bir bayna lolu mu ñew ci alquranul karim ak yonent bi ci bopam neena إن هذا القرآن نك القرآن دي واتشي يو يقصدنا نتلي على بني إسرائيل أكثر الذي جن جابري كي لنغا قمنهم يوم يختلفون ويوت لنف وإنه نك تيري له دن جبلة ورحمة يرمان للمؤمنين نيال ويغم نيال inna rabbaka naka sa borom yaqdi muy atte baynum seen diggante bi xukm yi ci atteem wa huwa yàlla al aziz mooy aji ci kàttan al alim mooy aji xam fa tawakkal sukkandikul kon alallaahi ci yàlla moomu innaka naka yow yonent bi alal xaqi yaa ngi nekk ci dëgg ak yoonu dëgg almubiin guddaa ji biir innaka naka yow dey waaraate ci nga mën a yem ak jubbanteeg wax waaye laa tusmiu doo mën a déggal nag almawta way deeya wala tusmi doo mën a déggalit asumma aji tëx adduaa ab woote isa wallaw bu ñu dëddee mudbiri nañu di way joxe gannaaw ab tax moom lu nekk mën nga kaa def ci moom waaye bu la wanee gannaaw daal woo ko muy dégg doo ko mën te ñii mel na ni jox nañ la gannaaw dootuñu la gëm wa ma anta déet yow bi haadil um yi ngay ji ngay aji jubbanti selmaxa an dalaalatim ci seen réer gi ndem na nguñ laa topp doo ko mën a omat in tusmi ngay déggal illaa man yumin lu may ko gëm bi ayatina ci suñu alquran fahum ñoo muslimuun way omatu lañu mu indi benn manzar ci yowmal qiyaama loo xam ne mufassiroona yi indi nañ ci wax ju bari na mu yàlla ne balaa dina tukki dana am daaba ju génn ci suuf di wax ak yéen loolu ba ko alquran waxee ñoomin saawi alal jalaalayn ibnu kathir ku nekk ci ñoom taawil na ku nekk ci ñoom it wax na nu ko foogee ndax yàlla def na rek balaa dina tukki dana benn daaba bu génne ci suuf di wax ak yéen bindkat yi nag indi nañ ci ay riwaayaat ak ahadis yoo xam ne dara wéru ci di tumurankel daaba jooju ñii di ko melal ñii di wax nu yaram way mel ak bind baag xeet wa waaye axjaas yi na dafa yaakaar ne dañoo juum daaba jooju yàlla yi wax soriwut doomu aadama rekk la nitu ordinaire la ndax nit ci daaba yi la bokk ndax daaba mooy lu dox ci kaw suuf nit lay doon ku xam kitaab ak sunna ku xam sharia kooku rekk mooy feeñ bokk ci ulamaaw yi ci waxtu woo xam ne ulamaaw yi ñu néew lañu xam-xam dem na bay bëgg a jeex kooku dal di feeñ di wax ak nit ñi waxtu woo xam ne alquran ñi ko xam dafay néew lool ñi yore diine di ko jëfandikoo tumuranke lal ci kaw suuf yàquti gi dal di daj réer dal di kam-kam xam xamu diine dal di tumuranke nit ñi tàmbali di jiital ñu xamul dara ñu leen di laaj waxal ci seen diine lu ñu xamul ñu réer te réeral leen su boobaa nag aalim boobu feeñ di wax ci diine xam kitaab ak sunna loolu rek la jublu ci daaba ji waaye la ci nit ñuy wax ci tafasiir yi loolu daal nekkul loo xam ne luñ mën a sukkandikoo la mosoon nañu laaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam daaba jooju ak fu muy génnee mu ne leen taxruju min aadamil masajid xurmatan ala allahi taala muy masjidul xaram mu ne kooku fu muy feeñee kon mooy mag nekk aalim buy wax yu leer nañ jubbanti doomu aadama yi loola mooy li ñuy sukkandikoo waaye li yeneen tafaasir yi nag di wax ci daaba ji loola moom bu ko téye buur ne wa iza waqaa su fekkee tabbina xawlu wax ja lan mooy wax ja wax ji muy wax asrafil ne ko walal ci bufta bi mu def nafxal uulaa ñépp dee loola nag bu bu wax ji na naree ñëw axrañ naa ñu génnee lahum ñeel leen daabatan benn daaba minal ardi ci suuf tukallimuhum muy wax ak ñoom kon nit la ana naasa nag nit ñi boobu kaanoo nekk nañ boobu laa yawqinoona duñu wóolu bi ayaatinaa ci suñu ak kawtiif buur ne wa yawma naxshuruhum bés ba dana nu fanga leen min kulli ummatin ci bépp xeet faw jan ñu dig maas bi man yu këddi bu nekk na ci ñoo xam ne dañuy weddi bi ayaatina ci suñu alquran fahum ñoom yuzauna deef na tere leen kalimatu yuzaun firi woon nañ ko ci nam li ca gannaaw indiwaat na ko yuzaun ay yumnaun xata isa jaawu ba ñu dikkee nag xaala mu wax ne ak kadabtum moo ndax weddi won ngeen bi ayaati sama alquran ci àddina walam tuxitu te yéen day léemu leen biyaa ci loolu ilman benn xam-xam amaada kuntum lan ngeen nekkoon taamaloona li def ko keroog wa waqaa tabbina alayhim ci ñoom alqawlu wax ja bi ma dalamoo ngir li ñu tooñ fahum ñoom la yantiquuna duñ mën a wax alam yaraw ndax gisuñu ndax xamuñu ne an naa ñun yàll ci suñ kawtéef jaal naa def nañ leela guddi li noo ngir ñu dal fii ci guddi wa nahaara ñu def bëccëg mubsiran muy aji leer inna bi dalika ji nekk la ci loolu laayatin kawtéef li qawmin ñeel nit ñoo xam ne yuminuuna danañu gëm yowmal qiyaam mooy wala bufta bi ñëpp a dee dëgg yàlla mokkal ko wala yàlla ne leen dem leen nga seen dëgg nit ñu lay romb di dem ulamaawul jagraafiya ne nañ loolu boobu dar sub jagraafiya la ndax toog bi nga toog ci suuf si di xool montagne yi da nga yaakaar ne montagne yi ci benn béréb lañ nekk fekk nekk dañuy wëndeelu ànd ak yow kon yaa ngay seen dëgg yi ñu mel ni dañoo toog waaye ñu ngay romb ni niri rombo lu tax yow doo ko yëg ndax de buy romb si nga toogoon nga toog si mu toogoon la toog buy romb da ngeen di ànd di romb rek nga yaakaar ne dafa dal wala dafa toog ci benn béréb loolu tax doo ko yëg waaye bu fekkoon dëju rek kay dem suuf si demut kon da koy yëg ëpp gi la suuf si ëpp ndax Sénégal rek benn réew lay gis nga nim la ëppee bu doon Sénégal rek kay dox sax doo ko yëg waxuma laak bu suuf si yépp di dox nag yow doo ko yëg boo jëloon benn melentaan nga teg ko ci lu toll ni kër nga jël palaat bu toll ni kër gi nga teg ko ci boo ko yëngalee du ko yëg te lii moo gën a rëy loola moo tax mu ne wa ma yoon faxu bés ba deefi wal fi suuri ca bufta ba fa vazia dal di dee ngir tiit man fi samawaati ñépp ñi nekk ci asamaan wa man fil ardeek ñépp ñi nekk ci suuf illa man shaa lu mooy ka soob na ko allahu yàlla ulamaa yi nañoo sonn ci mooy kooku bu ñépp dee ma shaa allahu kan la waaye ñu bari ci ñoom ne nañu mooy malaaka mi ñu sant muy wal bi kooka mooy illaa man sha allahu te moom it dina dee gannaaw ga wa kulun képp ci ñoom atawu dik way dikkal lañ yàlla daaxirina ñu nekk di way toroxlu wataraa nga gis nag aljibaala doj ya taxsabuha yaa ngi ko joortu jaamidatan muy aji way ci benn béréb way yetta day yetta murru ma ngay romb marra saxaab comme rombug niir yi suna allahi jëfu yàlla ngoog allazi yàlla mi nga xam ne atqana xereñe na kulla shay'in lépp lëf innahu yàlla xabirun ku dañ kumpala bi maa tafaaluun na ci la da ngeen def ko man jaa dikkee na keroog bi bil xasanati ci lu baax fa lawa ñeel na ko ci pay xayrun lu gën mi naa ca lam doon def wahum ñoom min fasai yow may sin ci ci tiitum keroog aaminoona way wóolu lañ wa man jaa ku dikkee na bét sa yaati ci fa ku bat ja wu joom seen kanam ya fi naari ci safara xaaltu jësaw na ndax def na fay leen illa ma kuntum lu may la ngeen nekkoon taamaluuna di def ko bi maanaa déedéet ku nekk li nga doon def lañ lay fay léegi nag innama umirtu naka digaleef na ma man mi ñu yónni day ana abu damay jaamu rabba haadihi albaldati borom bi la réew alazi bi nga xam ne xaramaha xaraamal na ko ok kulli cheyin lépp lëf wala wa na ko kulli cheyin lépp lëf wa umirtu digaleef na ma it ana na may nekk min almuslimin ci way jébbalu ci yàlla waan lu digal nañ ma it ma jangal qur'an legi fa man yahtadaa ku jumna fa inma ya tadi naka dana jub li nafsi ñal bopam wa man dalla kurir na nak fa qul waxal ne inma ana naka man min al mundarin bokna ci way waré bokna ci way waré way wa qul waxal alhamdulillah cënt ñel na yalla sa yurikum xalsena won leen ayaatihi ay kawteefam fa taarifunaha ba da ngeen ko xam wa ma rabbuka déet sa borom bi gaafilin mu yaaji sàgg ne ci li nga xam ne taamaluuna dangeen ngeen def ko fàttewu ko bind na ko dana leen ka fay